sëñ ma sàmba jóob saam bokkan na ca Seex Sidil Muxtaar Mbakke mii tax nu daje ba ñu mat fukk fukk yoo xam ni daal mat nañ li mu fukk ñooñu ñoo toog sëñ bi daldi nekk ca loolee mu nekkan nag loolee ko yàlla sant te moom du wuuteeg ndigalul yàlla mukk mu nekk ca coow li daldi bari nag ndax wuute gi mu wuuteeg nit ñi ndax booba ñëwleen ma yóbbu leen ci yàlla day baat bu mësee su koo dégg loolu mu ngi jeexew ñu ngi ko gëjën dégg ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam baatub jébbulu dal di juddu loolu it mu ngi arrêté wan ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa ba ci sëriñ tuubaa kenn waxaatu fi ñëw leen ma yóbbu leen ci yàlla kenn waxaatu fi it ni ku ko bëgg nag da ngay nangoo jébbule sa bopp ñooñee dal di sukkur dal jébbulu yoon wa ubbeeku nag ba ñu mat ñeen fukk ñeen fukk bi ko murit yi matee ñooñee sëñ Tuubaa dajale na leen nii yéen ñii de lu may dugg danaa ci waxtaan ak yéen lu ngeen ma ca waxit dana jub ndax yàlla may na ma ma def ci yéen loo xam ni du ngeen defati lu jubul du ngeen waxati lu jubul maam Seex Anta mii nag ca la bokk tarbiyewu sëriñ Tuuba tarbiyewu goo xam ni nag naadiran nga gis ko jafe ne loolu nga gis ko wax nañu ni seex yi mas nañoo dajaloo dem di siyaari ji sëñ bi ba ñëwee nee bi ñu dugg fekk sëriñ bi toog teg man mattum jalambaan di ko xamb waaye nee baa ngi fees del akub dóom waaye sëñ bi moom bu nekkee ci yàlla du yëg ci yooyu dara ba yàgg mu daldi wax ña fa toogan ñépp ni leen suuf si dóom bii laa bëgg ngeen tonni ko ndekete ñi toogan am na ci ñu doon wax naa dëgg-dëgg seexante daal mooy buur ku toll ni sëñ Tuubaa nga jëm si ci di sol yére yu beese nii te rafete nii waaye nag ci seeni xel lañ ko doon wax waaye waxuñu ko ci seeni làmmiñ est-ce que si bi ñu leen dajale leen doom bi génne ko néeg bi ñooñu yañu soloon te nawuñu ko jàpp yooyu lañ war a sol fi sëñ bi dañoo jóg ñoom ñépp dem summi ko sol yu ko yées ba ñëwee fekk doom bépp ñu tonni ko ñu daal ni sëñ bi a ah, waaw doom bi daa ni tonni nañ ko mun leen waaw waaw ñu ni ko ku ko tonni mun leen seexant ndax maam seexante Anta dafa daldi summi mbubb mu rafet mi ñooñu doon yéem lal ko ci doom bi di tibb di ci def bu feesee mu yenul boppam muy sotti ko ci bopp beeg yaram wi ba doom ba jeex tag ñooñu ñëw sëñ bi ñu leen seex de tonni na ko ñu ni ko waaw fu mu ko def mu ne ah, xanaa ci mbubbam mi mu solon mun leen yéen yéen a réyal mbubb moomu seex solon waaye seex defu ko muy dara seex lu mu def ci lu rafet bëgg ñu xemmem sama yoon wi ba dugg ci rekk a tax waaye moom soxlawu ko gëmu ko itam gis nga yéen li ngeen defe ni wan moo moo rafet ci moom moom la yenoo doom bi lépp tuuri ko yéen yi ngeen deeni wan eh, eh, moo mooy yu yemamaay yi da ngeen a delluwaat summi ji ko ngir wut yeneen yëre yu yées keroog la ko ni seex maa ngi lay digal na nga moytu bëre ak xeex ndax saa boo dee bëre <clears throat> boo léewtoo rekk kay léewtoo du yow mana saa boo léewtoo rek yow léewtoo woo man maa léewtoo ci kanam kooku te man ku ma léewtoo ci kanam yenu la jàggale dul ci suuf xeexit na ko moytu ndax koy xeexal man mii may joteek moom waaye yow du ma la bàyyi nga def dara lépp lu dib coono rek du ma la ko bàyyi seex xanaa xamoo ni yow yaay borom saadatu daara yi saadatu daara yi mooy nga am ak texe ci àdduna loo bëgg am ko loo wax mu am sëñ Tuubaa gërëm la loolu mooy saadatu daar yi mooy mooy taxit àdduna gokk àllaaxira nag mooy sëñ bee konoon seex xanaa xamoon yow bu yowmal xiyaamee yaa képp ko ànd ak yow walla mu bëgg la du ngeen jaare bis pénc waaye yéen fu ngeen génne àdduna rek aljana directement rek ngeen di def tabarakallahu kooku mooy maam Cheikh Anta borom daaru dëkk bii di daaru salaam sëriñ Tuubaa ko sanc moom la jëkk a sancit ci ab dëkk dëkk boo xëy milkiyatu nafsi di sa moomeelu bopp dëkk bi ci mag ci dëkki sëñ Touba beneen dëkk boo dégg sëñ Touba ñu di ko fa tudd kër la fa aman te bàyyi ma ko mooman wala maamam waaye kër gu mu sañcal boppam Daaru Salaam gii moo ci mag moo ci jëkk neena na it moom Serigne Touba fii jëkk a dégge yonent bi muy wax nee na Daaru Salaam gii la ko jëkk a dégge tabaarakallaahu Touba Mbàkke nag la ko jëkk a gise ci jàkkaam jooju ci Daaru Xudóos tabaarakallaahu bi mu demee ba yoon wi nag def téeméeri nit yu manqué tuuti juróom walla yooyu juróom ñeent fukk daal ak juróom mu woo maam Cheikh Anta mu ñëw mu ni ko Cheikh mu ni ko Mbàkke mu ni ko rafaatal naa la dëkk bii ba noppi yoon wi mat nañu téeméeri nit juróom ñeent fukk yi ak juróom boole naa la ak ñoom léegi kilifa yaa ko doon ci ñoom lu ñuy laaj lañ la ko laaj lu ñuy wax nañ la ko wax nga ñëw wax ma waaye yaay seen kilifa nee nañu looloo tax ñu di ko wax seex anta maanaam jëkk seex googu moo tax ñu naan ko seex anta ñu téye ko nag jële ko fii yóbbu ko Mali yóbbu ko ci dëkk bu ñuy wax Ségou man dem naa ba ca dëkk ba jàkka jëm fa tabaxan dem naa ba agg fa julli naa ca itam waaye ba mu ko ba mu fa demee ñu yóbbu ko Ségou mu dem Ségou gis ni dëkk ba amul jumaa amul jàkka ju mag mu daldi naal jàkka joojee walla jumaa joojee tabax ko ba mu àgg mel noo xaye booba jàkka mel na yombut jafe na lool mu daldi woo kilifay diine ya fa nekkan ni leen jàkka jooju dey defal naa leen ko addiyey sëriñ Touba te sëriñ Touba luñ ko jox addiyee rasulullahi la koy jox ñu bég lool sant lool ni ko lii nga nu defal day dara gënalulu ko lu nu yàgg mébét la nag waaye dañ ko mënut woon nu bëgg léegi nag nga wutal nu mun leen léegi nag wax leen kañ ngeen koy ubbi dinaa ca teew ñu ni ko danoo bëggan nag nga wuutal nu ilimaan mu ni ilimaan nag waa dëkk ba ñoo koy wut man jàkka ji tabax rekk laa ci def waaye sama yoon nekku ci ku leen di jiite nag yéen yéen a koy wut ñoom it ñu ne ah ku defar jàkka ju tol nii rafete nii mel nii day te mësu fee am ba noppi nanguwoo koo jiite nanguwu laa wut ka koy jiite kooku de yàlla rekk a tax tabarakallah jàkka joojee ma nga foofee ca ba léegi tabaarakallaahu mu def ko ngir yàlla ak yonent bi ak jëmmi sëriñ Tuuba boobe it bi sëñ bi génnee àdduna itam la mujj sol yére yooyu mu daan sol yu taar yooyu te yees mu ne yooyu may solkat dara taxul woon lu dul bëgg ku ma gisee xemmem yoonu sëñ Tuubaa yi ba bëgg cee dugg ginnaaw nekkatu fi nag ah léegi naa def ni ñëpp rek tabaarakallaa ren ji nag màggal gi bis bi maam Cheikh Anta ñibb séewoon jóge sigu dafa daje ak bis bi sëñ Tuubaa ñibb séewoon jóge Gabon ñaar fukki fan ak ñeent dajeeg bis bi sëñ Tuubaa jóge woon Gabon ñibbisi moom la sëñ Moussa Kana bis ba sëriñ Tuubaa fanaanse lambinaas bég nanu mbég moo xam ni jooyloo na France ni xanaa naqar wowan ca at ma bamba deme géej at moomee seex boo dajeel deela ni ngiij mu waaye mbég ma amoon ca at ma bamba ñibbisee dootu fi am daaru salaam la ñuy gisee tabaarakallaahu dëgg la naqar wi amoon at mi sëñ bi demee ñu génne ko metti woon na lool koo dajal rek bëggatula dund waaye keroog ba mu ñibbisee mbégte mi am ñoom nee nañ dootu fi am daaru salaam la ñuy gisee fekk sëñ Tuubaa waaj na ba bëgg ñibbisi jóge Gabon te maam Seex ant la jox xabaaru ñëwal dellu maa ngi ñëw balaa yàgg moo indi xabaar boobu ci réew mi ba ñu xam ni sëñ bi kon lee mu ñëw ñépp bég ba mu demee Gabon it fekki sëriñ Touba ba mu yeggee ba nuyu sëriñ Touba sëñ bi da ko ni seex mu ni ko Mbàkke mu ni ko lal bii day ci la yonent bi toogan moo ma la wax ni yaa ngi ñëw lal boobee ba maam Seex Anta ñibb si moom la ko sëñ Tuubaa jox mu ëndaale ko ak téere bu ñuy wax adaiqul fadail booba réew mi gooy na lool dara amu mu ni ko soo demee na ngeen di jàng téere boobu rek lépp ci xiiwal ak teraanga dara fi ñëw incha ba maam Cheikh Anta di ñëw mu indaale téere boobee ak lal boobee lal boobee keroog bi soxna Anta Njaay waajuram wu jigéen wa nelawee lal boobee ca lañ ko teg boole koog lal ba suulaale tabaarakallaahu ngir fonk ndeyam ju baax ja ndax da daan wax nii lu ma am ci sëñ Tuubaa rek sama ndey jii moo ma ko jox ndax moo ma jur bu ma jur woon du ma am kon nag lal bi rasulullahi toogan sëriñ Tuubaa jox ma ko mu génn àdduna ma ñàkk ko bis ni ci tey lal boobu yi ci laa koy teg ñu suulaale ko ko moo tax mu mu sakkanaan booleeg lalu weñ ba rasulullahi toogan mu barkeeloo ko doona laahi lal baa nga wan gaawaan ba sun maam anta faatoo ñu teg ko ca mu mel ni jant yóbbu ko deqali fa maam moor anta robaale koog lal booba sooya anta sooy mooy mu sooyaale ko tabarakallahu bis boobee soxna Anta njaay xam nga moom lañu daan wooye ummul masakin moom dafa ànd ak maam Anta Sali ci dund ba ànd ak moom ci génn àdduna ñu boole leen fu ñu leen denc ca deqali ñoom ñaar tabarakallahu ja mu baax ma nga xam mooy taaw Serigne tuubaa demoon nañ ba boo ta boo duggee ci fiñ ko denc dangay siin séen asamaan si am ñu ñëw ci sëñ bi ni ko danoo bëggan nga jox nu ndigal <clears throat> nu defar barab boobee ndax na mu mel eh, jombante na ak soxna su tedd soosu sëñ bi ni leen xam naa ko bu baax waaye la ngeen cey mébét bañ bu tawee mu tooy fàggul naa ko ko ba la muy ragal moom dindil naa ko ko laata ñu koy def rek nii boobee mooy ñàkk demal janna te dindil naa ko ko te loolee loolee moo ko gënal ñu defar tabax boobe fexe ba mu ruugay rot muy dem aljanna rek te loolu defal naa ko ko wax nañu ni maam Mor Anta Sali daana ko wax naa ko sëriñ Touba daanaka wax mbaa fonk nga sa maam Mor Anta Sali yaa ngi koy ñaanal mu ni ko waaw waaw mu ni ko ah, dee ko ñaanal de moo la tudd de tabarakallahu ba sëriñ Touba ñibbisi ci réew mi ci 1902 nekk fi ba ko yóbboo gànnaar mu nekk fa ba am fa sept mois sept ans jógewaat fa ñu indi ko Ceen Jolof mu def fa juróom juróomi at ñu jilewaat ko fa indi ko Njaaréem te bañ koy indi sama boroom dafa wax yonent bi ni ko bu tegee bëtam ci Touba rek la ma wax nag moom lépp dinaa ko xaj wax nañu ni sëñ baa nga jaare ca booru mbal takk bët won gannaaw dëkkub tuubaa ngir bañ koo gis ba mu jógee ba génn Mbàkke Bawol ba génn Ndula bay jigéen jaareem ay kilomètre yu tuuti cala wax ca doon wax naan raamu masiiri ila jurbel la daa lasasin law aayanu sirra maa fi seyri maa raamu mu naan raamu tubaab yi ñu ngi sàkku masiir yi sama dox ila jurbel ngir dem jurbel la daa lasasin ci mille trois cent un wala trente et un laam ju fanweer la siin gu jëkk gi junni la siin gi ci topp ñetti téeméer la mu ni ñu ngi koy sàkk waaye bu ñu xaman lañ ciy jële ñoom duñ bëgg ma dem njaareem man nag lu ñu ma mën a teg pour ma dem njaareem rek jaral na ma ko tabarakallahu mu ñëw njaareem ci mille trois cent trente euh, ci ba mu ñëwee njaareem benn at la fa am Cheikh Abdoul Ahad Mbacké gane jamono mu gane jamono wax nañu ni keroog sëñ bi togglu na ci ay ndab ci ay ñam soxna Anta Njaay léegi ñu tudde ko maam Anta tudde ko doom mu ñëw nee nañ xeetu ñam wu ne togg nañ ko ca bis boobule wax nañu ni sëriñ Tuubaa ne sama boroom moo ma jox ndigal ma teral gan gii wax na keroog ni bis bu yëkkatee loxoom daj xer boobu nekk ci am néeg bu ko loxoom jotee lu lu ma naqari ci yoon wi rekk moo koy dindi waaye loolu ñëpp xam na ni noonu la amee Cheikh Abdou Lahad bi mu doonee xalifa sëñ Touba mooy jot rekk jot xer bi bi mu doonee xalifa sëñ Touba lépp lu lislaam di bañ rek Cheikh Abdoul Ahad soxal na ko teg ci bakkanam nag gar ci bakkanam ba lépp toxoo Tuuba loolee di dox ba fi mu ne képp ku ñëw di xalifa sëriñ Tuuba danga yeesal loolee teg ci sa bakkan nam ko ca tegewoon tabarakallahu ñu ngi ñaanal bu baax sëriñ Muntaqa Mbàkke yal na yàlla gën ko fee yàggal mu gën a amug wér teg na lool bakkanam ci tedd ngay tuubaa ji gën di yokk tabarakallahu teg na lool bakkanam ci aar lislaam tabarakallahu kon maam Seex Anta ngoog mali googu la ko fa tudde ay doom kenn xamut nu mu toll am nay jamono moom lañ gënoon a xam booba dem ji mi la gut nii booba maam seex Anta lañ gën a xam ndax yàgg gam fa yàgg ak teraanga yem fa def tabarakallahu te lépp sëriñ Tuubaa taxam kon maam Cheikh Anta ngoog gane jamono ganee jamono ca Poroxaan tabaarakallaahu ñu tudde ko Cheikh Sidil Muxtaar kunti bu walaata tabaarakallaahu yàlla jox ko cir bu toll ni bii mu ko jox jox ko dëkk bii nga xam ni moom la ko jox mu am doom joo xam ni Sëriñ Tuubaa moo wax ni xalima gi bind bàkkaar ba ñuy bind xalima googa moodu maamun moodu maamun moom di su ko bindal bàkkaar te booba dafa yónnee ni joxe warga ak suukar ni nañ attaaya na yen xam nag ni dinaa naan dinaa naan ci warga yi waaye nag buñ koy tàngal ku amul bàkkaar na ko tàngal ñu teg fa attaaje ba mu yàgg lool sëñ bi yónnee ne ana attaaje daa noppeegu la ñu ni ko ah, déedéet mu ni lu tax ñu ni ko liñ ci tegkat moo xaw a doy waar ku amul bàkkaar na ko attaaya booba sëñ Moodu Moustapha Mbakke nga fa sëñ Moodu Maamun Mbakke nga fa sëñ Moodu aw ballaa nga fa Muhammad yu bari daal nga fa woon mu génnal boppam taxaw ne ana Moodu Maamun ñu ni ko mi ngi nii mu ni xanaa defee néewul ñu ni ko ah mu ni na ko tàngal moom xalima gi gi bind bàkkaar bañ koy defar moom taxut mu daal di defar attaay joojee tubaarakallaahu ñàkk bàkkaar moomu nga xam ni tubaarakallaahu nit ñi dañuy toog fi moom di tàggoo di ñibbi ba jeex tàkk mu door a jóg dugg néega mais tànk niga nit a fi moom ci baasam boobu day tëdd rek day tëdd ci lal bi rek ba kere nit ñi yeewee ko ba jeex mu dal di door a jóg nag dugg ci néegam kon yal na yàlla dolli leer maam Cheikh Anta yal na yàlla yàggal bis bii sëñ Modou Mamoun Mbaw mii ñu koy ñaanal yal na fi gën a yàgg bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa kon nag dañuy bàyyi micro bi ak alaaji Ablaye Seck ndax moom itam dafa war a defi benn conférence benn jàng ca dakaar incha